Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, euh, délégation du gouvernement nous ngi dit, euh, diaspora de l'Afrique centrale Nous ngi leen di nuyu ñu yabal ñu son excellence président Macky parce que nous comme toujours Afrique centrale vous bu yëgee boppam le gouvernement Sénégal son excellence président Macky Sall moo tax te li may wax nii le fekkee parce que Congo l'arrivée de son excellence président Macky en 2011 ba mu du di août nguur ci envoyé l'ambassadeur au niveau de Brazzaville on a resté combien d'années années gouvernement Sénégal musul Khalat, sax ñu nekk ci diaspora Afrique centrale te la taxoon mu am mooy accueil bu président Macky Sall amoon foofu ci biir loolu nag ba son excellence président Macky Sall ñëw di def campagne am mu nekkoon suñu demande mooy am consulat général mu defal ñu ko parce que problème bu ñu amoon mooy bu ñu daan jóg bugg am ay passeport ñun la majorité on est des commerçants dañoo daan voyager te bu ñuy voyager on est obligé ñu ñëw ba fii si Dakar jël suñuy passeport war a jëlaat beneen trace dem ba agi loolu lañ doon dund président Macky Sall ba mu faloo ci loolu la njëkk def benn consulat général sur place boobu ba léegi may wax saa bi ñu soxlee passeport ministre de l'intérieur dina yabal délégation ñëw arrondir ñu lépp passeport bu ñu bëgg defal ko sur ak vingt mille francs nag ci loo xamante ni nag am nañu suñu nawle bu fa nekk ñooñu ñu nekk des africains comme ca ñooñu amuñ ko kon nag kooku dañ koy sant damay wax nag ministre de l'intérieur gis nga ci pulaar am na lu ñu wax jamaragal ñim nangal ko halle hakkille yitere léegi nii mbate hakkil hakkille hunde wotere war kaski maa woo monsieur le ministre léegi nii ha na famde leydi ndi wonɓe gandanɗa hoore ma nanɗo mi refte hen mbimami jamaragal ñimnagal ko halle hakkille ittata ɗum leydi ndi wonmo won bi de ɓe garani moƴƴinde leydi ndi ɓe gari ko bonnude leydi ndi te kadi min jaɓata ɗum par ce que itti min ɗo yaade diaspora ko yilade komin dañi artirde e leydi ndi min gonata kon noon min coyno ɗo so wonti woni yidde leydi mum ko ittude toufere fawa e hoore policier ko ɗum woni yidde leydi mum ko fenani min gara hen so wonti gonirta mbaɗirta politique ko ittude ɓiɓɓe ma nawa ɗumen école mbiya e ɓiɓɓe janan ɓe jaltu jaaha piye ɗum min gara hen min mbi min calima lopet leydi ndi noon ndiɗo leydi leydi ndi cheikh omaral fuutiw min calima lokkol so tawi neɗɗo no daro o wiye bonni ndiɗon leydi abada min jaɓata ɗum ɗon so n excellence président maxane min gandi ngandu o hunde e lumdiɓe jogui e makko nde wonno ko rubin ngaji kewɗi o e kuppi som teskima e gargol makko e laamu no foti contenaire uji ganduɗa jagga ɗo tawa ko droga ji natanoɗe e nder ndiɗo leydi ko ɗi rubin ngaji kuppa ko yimɓe wurnowɗo ne mbaɗi mafia e nder ndiɗo leydi bonndi leydi ndi ha boni président maxal arti fo yimɓe e dow laawol min mbiyanma ko ko rutte en caggal ay tomin lunniro afrique central woodi ron ko tolérance zéro woodi ron ko discipline général laamiiɗo andat ko laamiiɗo laamaaɗo annda ko laamaaɗo wona neɗɗo darooɗo ene waɗa défier tous les sénégalais ene wiya wonde minen somi waɗaama ni mami waɗmi on ode quoi pour holɗum hay gooto ɓuraama ɗo goɗɗo e leydi he gooton fof wii ko baaba a waawat keddoɗaa e eh, leydi ndi ko ɗumen so tawi neɗɗo darima ɗo o wiya tubak tubak tubak maximum de respect à l'endroit de ces sénégalais ñoo xam ne ñooñu seeni seeni yaay ay tubaab lañu dëkk boo xam ne dem ngeen ba am ñaari première dame ñoo xam ne ay tubaab lañu ngay ñëw fii di wax tubaab tubaab tubaab maximum de respect à ces sénégalais yi nga xam ne ñii seen kam ay tubaab lañu maximum de respect maximum de considération ñooñu nga xam ne tey jii il aspire à être président de la République et am na si ñoo xam ne tey ñu ngi si l'équipe nationale mais discours yoo xam ne discours yu jëlee si mbedd ba si assemblée di ko wax tey jii amul benn tubaab buy taxaw si assemblée France di wax nit ku ñuul dara du doo ko mës a gis bàyyi leen ci xel fii on est à l'hémicycle seen discours mbedd yi ngeen yamale ko fële ngeen respecter tous les Sénégalais loolu la leen ñaan je vous